dua jenis kan cuma kemudian belok dulu dan saya Indonesia karena Bismillah kan mulai modal kasuara dia novel juga sama Allah untuk Syah Muhammad Fadil maanaam yaakaar bu baax a baax ci mu leen ndax mooy jaabu Syah Muhammad Fadil waaye ku ne xam ne bi dafa lamboo ñaar la ci jiitu mooy dafa am cër bu lislaam da cee am cër bu yoon na am ci cër bu rëy ndax mooy laylatul israa wal mi'raaj الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى li nga xam ne mooy diine lislaam ci la jële mooy li ñu sukkandikoo yàlla santaane lépp wax ci la dajoo ak sunu borom moom nañ sa hawa ma dalla zahir ma hawa ma yantiqu an hawa إن هو إلا وحي يوحى وإنما هو سبيل الدعاء فأمرت فاستوى وهم فقدانا ثم لما فقد kon mboolem daal xam ne moom lañu ñu julli di wër ak mboolem tënk islam yi dafay mel ni ci guddi gi nga xam ne moom guddi leeratal islam la ñaara ci la ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam jote moo tax Cheikh Mouhamadou Fadal moom mu coow mu cëpp Cheikh Mouhamadou Fadal ci la gën a àddina ba tax na moom ci boppam moom la daan dundal ba ko daan dundal ngir li ci daj biir ci laa a addina kon doon ko xam ni bis bu jikko yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon ko laqad kaana lakum loolu moo tax mbooloo murid yëpp daje fii di ko defee ci ndigalu Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ci ndigalu Cheikh Abdou Barak moom lañ fi wax noonu tëjee waaye fii ñu daje fii di ko defee ci ndigalu seen amsat mi nga xam ne mooy kilifa soxna Awa Mbacke caatum Cheikh Mouhamadou Fadal ni ngeen fekkee ñu koy defee mooy ni sëriñ bi santaane mooy lépp lu ñuy def dañ koy teg ci sunna dañ koy teg ci ak taay. tanzimuhu bi sunnati yaxuudu min al jannati bi asbiyaat bi mën na ci ay maxlis muazzim képp koo xam ne dund nañu ko fépp fu ñuy dajee di fa tudd yàlla wala di fa ko lañ a def loolu dund ko ci na noonu rek lañ koy dundee jàng alquran jàng xasida xam ne dañu xam ne dañuy berndeel dem di xàq boo xam ne yaatal ko day lu war ba saa soxla ci ma ay mu ma teraat kon kon gis na ne li fi def ci tur bi yàlla di jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi mën naa aar réew mi waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa fi nekk lépp yàlla da ko rëbb ba mu des tudd maa fiha kon nag liñ fi def ci lu baax ak liñ fi def ci tuyaaba mën naa sa réew waaye Cheikh Mouhamadou Fadal mu ngi day foo xam ne day kenn ci Sëñ Tuubaa ndax ak taalibe ak Pastef mun bëpp war na suñ ko tuddee mun suñ ko <coughs> gis ngeen sëñ Mor Moustapha ak sëñ Mor Abdoulaye Moussa sëñ Massamba kii jarbaar la ci kii doom kii nijaay la ci moom xam fii li fi nekk dañ koy jaay moo tax man mën duma kenn duma nijaay kenn waaye duma jëpp duma duma kenn si am na Fallou moom jëkk jaayante man juróom jaay naa ko jënd ak taalibe wëlbatiku jëlaat ak euh, jëgg def ko addi moo tax Serigne Touba nee na dañ ko naan nekk man ak yu tarawis kon kooku képp koo xam ne ci bis yu ni mel war ngaa xool ay jikkoom xool fa mu tegoon waaye war ngaa xoolit dimension njabootam bi yëpp gis nga leen noonu lañ mel kon bu fekkee fii njabootu sax bu baax njabootu sax maam bu bi sax maam Cheikh Sall man aw ñu Cheikh Seigne Fall sax la ko seen tudd ci am Cheikh Mom Fall boo demee ci njaboot Seigne Touba yëpp noonu lañ meloo boo ñëwee doo fekk Cheikh Sall Cheikh Moustapha dañuy fekk fu mu demee da ngay jàpp ni foofu la bokk loolu pësté ci Seigne Touba la ndax day genn garab boo sa ak taalibi ak taalibi dafa war a mel ni ak ak garab bu sax fenn boo demoon ca marché ba mën nañ boppam boo ko jëfandikoo waaye garab ga fenn rek la sax waye njëriñam àgg na fepp ak taalibe mom la nek sëriñ bi moom loolu la ñu war a jàngate ci njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu gis ñoom ndax ñoom dañoo tegoon seen tànk fañ ko war a teg toppoon mag ña ba tax na rafloowu luñ war a roy ba di ko fenn ndax fi di def def di wax wax kon ñu dara wala nga wala nga ba waaye tuuma teew ñu koy nataal kon nag loolu day loo xam ni moom lañ war a ci bis bi daal mooy nga xool ki nga xam ne mooy sa kilifa nga def ko muy sa waay nga xool ay jikkoom nga def ko muy say jikko nga xool ay jéegoom nga di ko xeeñtu di xeeñtu morom ndax ñoom loolu rek lañ nekkoon loolu mooy tax ñu mën a texe mooy tax ñu mën a am saxaar ci daara yi ci gàttal mooy euh, solos bis bi mooy solo bis bi tahun lu baax ini, tax fii ma fekkal laahu daaral laaxira waaye wala tansa nasiibaka mina dunya kenn ku nekk la ngay sa àllaaxira ci àddina koy fàggoo ndax fi muy daaneel dafa am benn mag boo xam ne dafa dem ba ca wetu jàkka ja mu def fa benn mbaar mu samp kër du ma takk soxna du def lenn ci mbaar mi lay nekk su guddee ma fi jaamu yàlla dem ci jàkka ji julli suñ mag bi wóolu ko laaj laaj ko ni ko ndax samp kër mu ko man de aw kër waaye def naa menn mbaar moo xam ne dama fay xaar yàlla sëriñ bi ne ko li la yàlla wërsëgal dañ ciy jël nga def ca barab boo xam ne danga tolloog moom foo foo fooy xaar yàlla yomb na waaye fu lay say nawle xaar moo jafe fooy xaar say nawle moo jafe mais adduna ak àllaaxira day ñaar yoo xam ni koo ci jàpp morom ma ca des day dem waaye koo ci jàpp dangay maslaa ka ca des nga xam ne moom ñoom seen message ñu defal ko Sëriñ Tuubaa mooy dëgg ak jaamu yàlla ak doyloo li nga am salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah. tey ak kàlla am na solo. kon ñu ngi lay doon kàlla ak yow. ndax ñu am na loo xam ne moom mooy fëtt na ko. di gis waat bu baax ci ñoom ñi nga xam ne ku tedd kii si ginnaaw ma xam ne ñoom ñoo nekk. doon fekk bi borom ak fa ko soog. waaye di gis waat ci koo xam ne ñoo fi ñu Cheikh Mouhamed Fadel Mbacké. waaye ay ndénkaan ci ren waa ñoo xam ne war nañ ko mën a roy ci kilifa yi rawatina Cheikh Xadim Cheikh Ahmed Bamba. ci taxawaay bi nga xam ne taxawoon na ko ci boole ay njabootam. waaye ci tubaarkàlla jaamu yàlla ak lépp loo xam ne rek dafay yëngal àdduna ak alaxira loolu yëpp dellu si wàllu si tubaarkàlla macha allah muy kàddu yoo xam ne lu nekk rek mënees na ko ci jëlee ci ay jël ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu ñaanal soxna si waaye di ñaanal seen bi tamit yàlla suñu borom boole bàyyi ñu fi dañu laaj li nga xam ne def dara yooyu Cheikh Ahmadou Cheikh Mahmoud asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh ci a bopp yëpp nga xam ne njëriñ ak àllaaxira xam nga bu ma duggee neex dëkk bi